Alib, le goût naturel du lait. Pour un quotidien rempli de bonheur et de douceur. C'est Nico. Orange Money. Orange Monnaie. Tous les moyens sont bons pour boire du thé Floria. Qui Floria, avec Orange, Amoul Père Terezo. Royal Horizon Baobab, fil free, home. Téléphone 33 939 71 71. Adresse Route des Hôtels, Saumon. UKO Master accrédité à Kames en audit, management, informatique, sciences politiques, comptabilité finance, droit des affaires. Oh Royal, Bien en Afrique, design your life. Momo Fashion, M60 Collection segmana é uma barrek melena ili fo dara ah dangay sonal sa bopp rek kat yi xam naa ko ñëpp xam nañu tosu na ba dof xoolal man loolu laay bayu dégg ay karim mënoon ay jaay ko di fondé loolu fii ba ici repose mënu ma cee convaincre dafa rax wax di sax du loolu man dama xamul idi lan lay toppee sa ginnaaw kat mu koy gololoo en plus il est tellement mignon xale jigéen ñëpp di ko wër hmm. <laughs> Allô Oui. C'est moi. Ça va et toi Ça va. On peut se voir. Ah, Maï, ça m'a guide. Oui, je sais, mais c'est urgent. Ah, d'accord. Fallait le guiser. D'accord. Maï, il dit de Dans 10 minutes, c'est bon. Ok, j'arrive. Ok, super. <laughs> Parah Eh, gue uh. boy. Tekan kan? ke depan. Karang <laughs> gabus bini. Eh. Ya berarti. Oh, sama gay, mai ñoo ba jàmm la. ah ya karena aku de Maïcha moomu doon woo as pare daf ma soxla. waaw waaw fu mu après on se reprend. bye. Oh, nice léegi léegi. Paco. kii nee naa la sama xel dalul ci moom. ah da ngaa fiir rek war naa la yaay sama meilleure you are my bestie bul xalaat yow xam nga yow leer na leer ne kii lii nekk sama bopp bi nekk si bopp bi mënumaa jaaxal eh man la bëggoo de wala. en daal man prévenir naa la wax naa la. rassure toi rassure toi man la. fii sa gàll la loolu loo bëgg yàlla nay jëm euh, hey relax bu dee pour kii ne t'en fais pas elle c'est ma meilleure amie si moom fanaan man vas-y à ah, bon ça va de xaw na ma sonal tuuti rek ah ok dégg nga début bi la rek début bi kese udah goreng باكوي ورجلنا لدي ياي باندي مو ما يدوف اس بي جيلي امي في لا في اللي بلو جس عيل جنجل تلمو فوفو من سما خير دلاتو لسيا ودارا بول خاب ما زارا Ça va Ça va. Ani Paco Xaw ma de. fii laa dëkk. boo tourné rek. maa Paco ñoo bokk koñ. ok. dama jënd woon mburu. bon appétit. merci. kii lan amoon nañ la pourtant léegi nii rek lañ gise de Pinky dañu mere non merewuma leen sax pourtant puisque dañ doon ànd léegi àndatuñu day am ok am nga si plein droit am nga droit bañ a ànd ak ñun boo ñu sentirul am nga droit dem ànd ak ñu la neex mais ñun tamit am nañ droit bañ a ànd ak yow buñ la gisee ngay ànd ak ñoo xam ne c'est à dire c'est à dire Pinky wax ji jaruñu koy raay ñoom mais ma bon. <laughs> excuse-moi mais au fur et à mesure nga leen di fréquenter ils vont t'influencer. Pinky tu ma la affaire yow déjà am nga talent mën nga way mais xamoo sa tànk entourage bu baax li wax intérêt la affaire de je m'en de toi mais bu du pour récupérer la parce que.

Euh, je m'appelle Pinky. Rose. Joli Enchanté Pinky. C'est le... J'espère que Gaïa Nanda Ma fille a je Et soyez la bienvenue. You got me? Mais c'est une bise. Il que tu Mais depuis quand ce limite? mais gérer li ngay gérer bàyyi ma gérer li may gérer yow tamit mm. wuy ma yow penk bi nañ ci bëgg lu yaa ngi may dégg. booy Paco yow daal booy doo mës a sérieux quoi affaire yi soo koy def doo prévenir sax au moins ma xam. <laughs> gis mu judd woon jamono bu njëkk ba dama naan yonent laa. Hmm. <laughs> yonent. sérieux yàlla dafa may wàccee pour may dimbali jaamu yàlla yi mooy sa genre gi rek dama bëggoon arranger sa diggante yàkkati Eh, comme j'ai réussi sa xol moo sama xol waaw. il est temps nga bëggante koo xamante ne soofu la te bëgg nga ko. <laughs> attends léegi kookal la. Emma. eh Paco. eh bu ma ne maam benn bëñ yàgg nga maa fatak ay idi il est beau il est mignon mu nekk fii di topp benn jigéen. loolu kan la ko wéy la ko. wuy ma eh, yow it bu ko déglu yàgg nga maa fatak ay Emma dafa laa neex. damaa bëggoon da ngaa bëggoon a fàtte kat rek moo tax bëgguma la ko may. Mais là, c'est le bon moment. Quelques instants. Just type it out. Et vous le bon Emma c'est vrai que tu naa ko wax je lui ai dit que tu me plaisais bien parce que t'es une meuf cool et super charmante. Ah bon merci t'a une maa de de doon et que est dafa mignon affaire yooyu. dit, tooñ. tooñu ma sœur. bah si tu le dis merci. bébé, pas besoin de paniquer. T'es la seule qui hante mes pensées. Si l'amour rend aveugle, je vais te crever les yeux juste pour que tu m'aimes. Encore un peu plus. Ce genre de meuf qui traîne pas dans le check. Dans le check. Tellement belle quand elle s'est elle reste vraie, ouais. On moi tes qualités. N'aie pas peur, vas-y, baby. Toi et moi, c'est pour la vie, projet validé. Toutes ces années, toutes ces années, on était amis, je te côtoyais. Toi, la vie de mes rêves, sans même le savoir. Ce que je cherchais était sous mes yeux, mais j'étais naïf, j'avais pas ce que je voulais. Hein. Baby, you know that. Inch'Allah, c'est carré. Baby, you know that. Sans forcer, on va se marier. Baby, you know that. Toi et moi à l'amour.

Luxe statut Mecha jubóo mi ngi xeeñ de. waaw baax na. ngeen ni lii naru neex waa boor bi <laughs> moo taxit Emma tontu na fii ngi wàcc. yow dangaa Emma école ba daj numéro ñëpp laa yor kenn tawuma. nit wuy nee na bañ xale bu foofu. <laughs> waa kii mi ngi mel. <laughs> ku irrégulier dugg na. si wuy comme que nee nga yaay connaît tout yaa am numéro ñëpp surveiller ma pink bu baax ndax xam naa ko defante la def ci xol bi te léegi mu tontu. mais cas bu bees am na de Emma mo statut. je suis en couple. ah lan. xanaa kon dafay génn ak Paco. déedéet. ema ak pako ay xarit leen mais sànq bi may jëndi mburu tase naa ak Cheikh Anta muy génn gaale pako boo demee def ko ko langal de yow yam nga ema de lan lay doyee Cheikh Anta arrêtel jànq baa xamoon ni mosoo koo yàpp pour koo bay rek dara tëwulee bàyyi nga ne bag bi sax sañ nañ ko maraan kaa boobu de maa koy toog ba mu sës ñëpp a ngi bëggante de ba mu des ñun loolu de dugg nga ci mooy sa génn groupe bi. ah chaque jour rek dañuy kaa no love. no love no problem. no love. 我感觉。